ndey fii ñu taxu def interview fii laa jël siège bi sax ne damay toog balaa maa dem bay bëgg a toog rek benn waay woo waa ji de Mamor am na ku muy dàqan dàq fële ah mu ne Mamor ku muy dàq bi ma dawee nag ak si wetu camp yi nekk boori terrain ànd bël ba ci laa gis waa ma kodd ma ngoog foofu laa gis mu tëdd bi mu tëddee nag moom mu ngi doon sukuraat nag mu ngi doon sukuraat daal ma teen xool ca kaw ma seen Mamor di dàq waa waa ji di génn course ba waa ji nag li ma ci gis daal mooy am na lu mu yoroon ca loxo ba ba Mamor agsi la ma ne ab paaka la yoroon daal doon paagu mais mënuñ ko woon jàpp kon waaj da ko gënoon gaaw ci loolu nag laa woo président ODCAV ne ko man daal wool ma juste police parce que maa ngi woo 17 jotuma leen parce que dut saw ma nga foon mu daw jël oto bi dem commissariat woo leen ci la woo sapeur ak police ñu daal ñëw mhm. mais bi ñu daal fekk neen waa daal dog na daal naa ngeen gis deret bu bëri ah, ci xol bi la ko jam ay xam naa ay coup yu mhm. ak ci loxo bi fi daal dagg na ci ay coups yi. fi veine yëpp daal ci yooyu yëpp dagg na daal ba traite daal mënatul woon. doon topp daal. waaw dafa mel ne daal waa ji da ko doon da ko doon jam parce que da doon daw. parce que waa ji da doon daw pour génn xam naa ci beneen côté ba da doon daw pour jéem a génn jëm ci boori r seen boori kër yooyu pour mën a sooy mais fekk waa ji egsi na ci kawam bu baax a baax fa la daal doge daal. waa joo xam ne dañ daana fi ñëw nag bu liggéeyee ba wàcc daal daana ñëw fii aw fii foo daal d dem daal di dem ci ci ci ñibbi ma daal loolu laa ko xamee daal fondeur daal nee na fondeur daal day liggéey xam naa mooy ñooñu fii ci marché Mboussante am na ñaari kër ñenn ñi Daaru Salaam